فخسيلا من tel borom babi ni lo wana तेरा لا Miftaahi Daari Salaam barkeb Sëriñ Falilu الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وكرمه ورحمته يقبل اليسير من العمل ويغفر الكثير من الضلات والصلاة والسلام على من أكتملت برسالته الرسالات وقتمت بنبوته النبوات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه wa xayra xadimihi cheikhul xadim wa ummatihi wa sallama taslima asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw bu nu sant yàlla sunu borom bi tabaraka wa taala julli ci yonenteem bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam dolli sant sunu yaakaar waaye tamit nag dolli di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaan yàlla suñ borom bi tabaaraka wa taala yàggal ko fi lool te wéral ko waaye tamit nag ñu ñaan ci sàkku ci moom it nag mu ñaanal ñu ñu yàgg fi lool te wér ba naal yi nga xamee ne naal na ko ngir liggéeyal ko Cheikhul Khadim mu ànd ko ñun taalibe yi ñun ñëpp naal boo xam ne nii naal bu rëy la muy naal boo xam ne nii naal la ba nga xamee ne Cheikhul Khadim moo ko fi bàyyi woon mu jëm ci al ilmu mu nekk projet boo xam ne nii bu am solo la boo xam ne ni munta ñàkk ci li nga xamee ne moom mooy yoonu Cheikhul Khadim yi su ko defee yéen nag noonu lañuy ñuy wàccee ba yegsi ci njaboot gi nga xamee ne ñoom la waa kër Cheikh Mouhamadul Fadal fekk si ñëw ànd ak sëriñ su tedd si nga xamee ne ñoom ñoo nekk suñu ginnaaw di Cheikh Mouhamadou Xabbaan ak Cheikh Ahmadou Badawi ñu jël nuyoo yi teg ko ci seen loxo ñu jottali ko mbooleem njaboot gi yëpp ci mbégte mu rëy mii nga xamee ne nga xam ne ñëw ngeen seen kër ñëw ngeen foo xam ne nii ñi ngeen fekk si ak njaboot lañ ci njabootuk Cheikhul Xadim gi waaye tamit nag ñëw ngeen ci ñoo xam ne nii nag seen waajur wa Cheikh Serigne Ndiogou mbakke am alaaqa bu rëy a rëy boo xam ne ni doxoon na ci diggante Cheikh Mouhamadul Fadal ak moom loolu nag ngeen xam ba tax ngeen jëf-jëf ju rëy jii nga xame ne dañ ci safoo lool di ci am mbégte lool loolu moom moo tax nag ci noonu lañuy ñuy jaaree rek nuyuwaale mbooleem kilifa yu tedd yi nga xamee ne teew nañ fi buñ fi jiitalee sëriñ Moustapha Mbacke mu nga xamee ne moom moom sëriñ Modou Mati Sakho ñu yóbbaale ñu ci des ñëpp rek ñoo ngi siyaarawaat ñëpp kenn ku nekk rek incha allahu rabbi liste bi dina ñëw. ñu tudd ñëpp sant leen ci jotaay bi ak it nag euh, jéego yi nga xamee ne def nañ ko lii nag lu rëy la lu histoire di bind la ndaxte maanaam rafetaay gi foo ko foo ko foo ko foo ko foo ko foo ko takku rek weesu na ko ci noonu nag ci la ñuy jàllale rek balaa timis gi jot insha allahu rabbi ngir ne waxtaan wi am na waxtaan bu am solo waa xam ne nii Cheikh Mouhamadul Fadal mii nga xamee ne moom ngeen jël ngir mu di ko def Cheikh Mouhamadul Fadal bu sa moom sëriñ Asan dina ci ñëw insha allahu rabbi waaye xam la hada rek ñu jiital sëriñ Mouhamadou lemin Diop mi nga xamee ne moom mooy euh, waykatu Cheikhul Khadim mu ñëw insha allahu rabbi ngir jàllale way yi nga xamee ne def na ko ci diggante Cheikh Mouhamadul Fadal ak sëriñ Njoogu Mbakke kon Cheikh Mouhamadou lemin Diop bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp xam naa fi ñu ma dugal nag man damay tënk rek ñii tinki ñi ngi ñëw incha allah waa kër sëriñ Fallu yi buñ jëlee bis jagleel ko sëñ njoogu dañoo bayu sas ci mbokk gii ci mbàkke gii ci aafe gii juddoo jolof ak yet ci aysa aysa ak saajo gi ma wax la sëñ joogu ci aysa ak saajo nim ci demee ma wax la gis nga saajo moo jur ku ñuy wax baara saajo baara jur sëñ abdou xaadir ba di maami mi mbër sëñ abdou xaadir ba di bàyyi jama ba mi yaay sëñ joogu di jàmbaar ñeme ba aysa itam moo yaayi balla aysa mii jur soxna mbàkke yaayi soxna jama mii sëñ Njóogu daa maamu ci ay sa maamu ci saaju wàll yëpp la ngaamu ballay ki jur maam Mor ma Anta Sali kan di maam Fallu geneen bokka ngi kon ma wax nañ bokkee ba tey ci aafe gi ku ne sa maam ko rob ca jolof gee ngir mati ñang awa busa ci wet geeya ni soxna ñang tafsir ni njóogu wet gee bokk gi lim rëy rëy dañoo bokki jiko moo tax ba sëñ Fallu lu ñëw nag jukki 63 bi jumaa ji nag matee sëñ Fallu wax sëñ Njóogu du may amati sekkare benn nag boo may jëfandikoo ngir saa rawaan man Fallu jàpp naa ko jumaa ji mooy saa lépp léegi mat na saa aajo moo doon lii te léegi faju na sekkare boo bëgg ci man ñëwal jël danaa la jox loo xam ni dootoo ñàkk njël gaa yi bari fi daaf euh, euh, ña demande see dama daaf kii koor ñu wax sa nag lu rëy a rëy lu day sëkkëg barke lu kenn xamul nu mu day sëñ fa def ko ni yoral barab bii sëñ njoogu yaa ma doy ci sama baay bi yow la nga doon ñaan am nga ko ci buur bii neel nojji fii di xool borom barak bii fekkoon na sëñ njoogu de dañ koo laajoon loo bëgg nag njoogu de lii la tontu woon man xut bu laa bëggoon borom bi def ma ko ngir man lu dul lii sama bët bi tuufu ko te ba ma koy wax booba nag sëñ Fallu fekkewu ko cey baatinub sëñ Fallu mu ne ko xutbu njoogu nag lii rek la te sunu waa ji kum gërëm rek yéege la ngir xutbu weesuwul di digle ak tere tey njoogu yaa ngi fi sëñ bi deel digle tere sëriñ Abo seral nga tey jii guy yi xolub sëriñ Fallu ba cër yi nayi ngir xalifab sëñ njoogu tey sëñ Falloo sëriñ Abo di xalifab sëñ Fallu sëñ Fallu njoogu yan bi yàlla na woyof sa rakk yëpp bég ci yow da ngaa woyof seen bokk gi yal na ko yàlla sàmm yàlla na ngeen sax na ci wér ak jàmm te gudd fan te mën ci diinay lislaam dooni murid saadix yu ngoy ci maam daam sëñ Fallou sëñ Joogu na yokk seen leer li fee ñu ngi ndékkee ka añ ak di reer asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, jërëjëf sëriñ Mouhamadou Lamine Diop ci way yu am solo yooyee nga xamee ne jàllale nga ko fi ci diggante bi nga xamee ne moo doxoon ci bay na Cheikh Mouhamadul Fadal ak Serigne Diogu Mbacke su ko defee rek kon euh, xam naa ne muhaadara bi incha allahu rabbi mooy ndoxta bi nga xamee ne moo ci war a topp ginnaaw bi nga xamee ne it nag njabootuk Serigne Diogu Mbacke gi yëpp ci ka nekk ca bopp ba di Cheikh Mouhamadul Fadal. te kilifteefug sëriñ Cheikh Baara bu ñoo ngi santaat bu baax a baax mbooleem mbokk yi fi teew yépp di am mbegte lool ci jotaay bu am solo bi nga xamee ne ñëw ngeen ko ci seeni kër ndaxte woote say mbokk wuyu si la loolu lu am solo la waaye tamit nag lu mbir la moo xam ne nii ña ko def nañ xam ne maanaam lañuy def lu am solo loo xam ne nii lislaam bëgg na ko lool te sopp na ko lool kon su ko defee ñu xam ne rek Euh, muxaadara bi dina nekk ci thème bi mooy al bu'd tarbawi wal axlaaqi fi shaxsiyati Cheikh Mouhamadul Fadal euh, Serigne Fallou Bousso mi nga xamee ne moom mooy mi nga xamee ne moom moo ko war a ilqa ñu xam ko bu baax a baax ci euh, jàmbaar lool waaye xam ko it ci xam-xam nga xamee ne fuñ ko tuddee dinañ xam ne kii moom ci nit la koo xam ne nii ci xam-xam rek lay dox kon it njabootu Cheikh Mouhamadul Fadal gi bu ñu tànnee Cheikh Mouhamadul Fadal ngir mu ñëw waxtaanee ci Cheikh Mouhamadul Fadal loolu lu am maanaa la loolu luy wane ne li nga xamee ne moom mooy bëgg-bëggi eh, sëriñ bi ci maanaam faxe ba xam-xam jëm kanam waaye fexe ba yi dëkk bi nekk dëkk boo xam ne ni dëkk xam-xam la loolu rek moom moo koy firndeel bu ko defee dinañ jox sëñ Cheikhouna Ndiaye moom moo koy ànd ak moom incha allahu rabbi ci waxtaan woowu yi nga xamee ne dinañ waxtaan ci jikko. waxtaan ci xam-xam waxtaan ci yar bismillahi rahmani rahim mathaluhum kamathali alladi istawqada naara falamma adaa حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم أو كصيب الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا jaamu yàlla kon diine léegi boo koy xool dafa mel ne ay xollit yu ne ci kaw nii rek muur dara xol yi di mën naa rafet lool waaye boo xoolee ba ca biir doo fa fekk dara loolu mooy diine jamono ji ay xolli li rafet ci kaw waaye ruux gi nga xam moo war ne ci biir moom boo demee li ci ëpp doo fa fekk dara moo tax def waxtaane nag wàllum yar ak jikko yi newoon ci mag ñi ngir ndaw ñi man ci eh, niitu dafay am solo xam naa balaa ñu dugg ci jataay bi ñu ndokkeel ci bis bi nga xam ne ci lañ jëm te mooy Kazu Rajab di guddi goo xam ne ni mën nañu wax ne dañ ci jamono ñaari picc ni ko ni koy faral di waxe xew-xew bu mag ci histoire am ci muy rañaan waaye itam gën ak àdduna sax am ci muy ñaari bis yoo xam ne nii dañ koy mën a dañ ciy mën a barkeelu ci ñaari fànn yooyu waaye tam mu am ci xew-xew bu ci am boo xam ne nii dafay niroog li nii bëgg a waxtaanee muy nekk ku nekk xam ne ne rañaan mi bi muy am at mi mu amee woon yonent bi sallallahu alayhi atum njàqare la ko tudde woon ndax xew-xew yu bari yoo xam daloon na ko ci ba mu tiit sunu borom yéegee ko ci kaw nag ngir delloo si ko ama mu amaat confiance ci boppam gën a mën a dëgër mën a ñëwal woote bi loolu tam dañ ko gis ci sunu biir bu ñuy waxtaan si Amadou Fadel kon sëñ Fall lu gën a ci àdduna ci atum 1888 wala 89 ci Daaru Salaam eh, ci atum 1889 nekk xalifa Seexul Xadim ci atum 1945 bi 1968 mu bàyyi ko fi ci àdduna bi def itam ay liggéey yu am solo yoo xam ne nii def na ko ci gannaaw bi mu nekkee xalifa lu mel ne mottali tabax jumaay Tuubaa ji ak jooxe faratay sunu borom njëkk muy nekk xalifa waaye itam sos ay dëkk yu baree bari yoo xam ne la ko taxoon a jóg mooy yar ak defar doomu aadama moo tax waykat bu mag waxoon ko ne ko sabaqta jiilaka fii ilmin wa fii adabi wa fii fadaila lam tusraf biha fikaru mu ne ko jiitu nga jiitu nga sang maas ci xam ak i teggin bu yar ak ci ngëneel yoo xam ne nii keneen mësu koo am ba ne ko tuubaa li man ataahu lil istigfaari waylun li man yatihi lil inkaar képp koo xam da ñëw ak jàmm ak salaam rek boo ñëwee ak texe ngay fekk moom waaye képp koo xam da ne ngir diingat ak jaxajaxal nag boo ñëwee tuskara nga fay fekk benn waykatu mauritanien waxoon ci moom lu am solo ne ko xat farihat bi mu nekkee xalifa mu ne xat farihat tuuba wa ahlu tuuba is tawwajuhu taajahal mahsuba mu ne tuuba bég na waaye waa tuuba bég nañ gannaaw buñ santee gannaaw buñ sampee si amadou fadil mu nekk xalifatu Cheikhul Khadim kon kooku mooy ci sax seet Cheikh Mamadou Fadim ñu bëgg a tënk nag ci dimension éducationnelle bi maanaam dayob yar lim ci amoon waaye itam dayob jikko lim ci amoon ci jikkoom ci jëm personnalité lim ci mënoon seetlu bu noppee nag xëy na tëjee ko loo xam moom ni moom lañu war a mën a jariñoo ci waxtaan bu fekkente ne baatu tarbiya tarbiya baat bi ci wolof gisaguñ bu tolloog moom ndax yar la ñuy faral di wax te yar xëy na dégg ni léeg-léeg di am lu ne ci biir moo tax ñu dañ naan defar defar lañ koy tuddee bu ñu delloo ci ñiy gëstu ci fànn boobu dañuy wax ne baatub tarbiya ci cosaan li muy tekki mooy yokk ak màggal ak sàmm ak joyant lépp looy yogg di ko màggal di ko sàmm di ko joyanti yaa ngi koy def la ñuy wax tarbiya te mooy defar moo tax lépp boo xam ne nii lépp acte boo xam ne nii jëf joo xam ne nii nit daf koy def ci doomu aadama ne moom te muy bàyyi jeexit ca nit ka moo xam nag jeexit ba nu manti mel moo xam jeexit bu ñuy sant la wala jeexit bu ñu santul la boobaa boo ko defee rek yaa ngi dugg ci buntub tarbiya waaye nag tarbiya bi tax ñuy wax ñun mooy defar gi nga xam ne day defar doomu aadama tarbiya nag ay fànn yu baree bari la danañ defar yaramu nit danañ defar xelum nit danañ defar maanaam sentiment yi doomu aadama ak yeneen yu baree bari waaye itam dañuy defar ruux doomu aadama bu ñuy waxtaanee personnalité yu mel nii ñu bëgg Cheikh Mamadou Fadel nag li ñu gën a yitteel mooy ni ñuy defare ci wàllu ruux mooy fexe ba indi defar nit koo xam ne nii royteef lay doon ci kaw waaye itam royteef lay doon ci biiram mooy kaw gi dana mel na mu war a mel waaye biir gi dana set wécc mel na mu war a mel yar lay doon boo xam ne nii walla defar lay doon boo xam ne day boole defarug biir ak defaru biti moom la sëriñ Mbàkke bu sa waxoon ci Seexul Xadim ne rabba xuluubana wa ajsaamana fal kullu saafin wa naim nee na sëriñ bi dafa suñuy xol ba mu set waaye defar suñuy yaram bam ne tax ba ko ñu gis xàmmeem ñu bu ci nekk mu ne kon suñuy xol set na suñuy yaram set na loolu mooy tarbiya wala defar gi nga xam ne nii moom la doon séentu ci gaa yu baax yi kon defar bi ñuy wax ci wàllu ruux day defar boo xam day jël day sukkandiku ci defar nit ki ci pas-pasam waaye defar nit ki ci jëmmam sëriñ Fallou nag am méthode bu am yu am solo yoo xam ne nii danañ ko jànge ci ay jaar-jaaram yoo xam daana ci jaar ngir yar wala ba ngir defar doomu aadama yi nga xam ne nii ñoom la seqaloon te am lu waroon def ci ñoom buñ ci tuddee yàlla nii dana mën a yóbbaale yi ci des bi ci njëkk mooy nit ki ngay defar nga fexe ba delloosil ko mu am yaakaar waaye tam nga fexe ba def ci moom confiance mu wóor ko ne moom fi mu bëgg a dem mën na faa dem xam nga ñu bari ñun boo leen joxoon ni di leen ko defarloo léeg-léeg dañ lay xas doo xam dara doo man dara loolu boo koy def ci bopp xale day tax mu découragé jàpp ne moom du mën dara mukk moo tax nit balaa nga koo mën a defar da ngay def ci moom espoir da ngay def ci moom yaakaar waaye def ci moom pas-pasu ne moom fi mu bëgg a dem mën na faa dem dañ koy meleel ci ab docteur rek biy faj bu fekkoon nit dafa wéradi ñu andi ko ci docteur docteur bi ne ko yow de sa wéradi gi moom xam naa da ngay rek mën naa rey nit ki waaye bu fekkee dafa ñëw mu ne ko ah yow kay da ngay wér incha allah te dañ lay dañ la faj ba nga wér loola yaakaar jam yeesal ci moom mën naa tax wéradi googee koo ko jógee ci moo tax képp kuñ la jox te séentu ci yow nga defar ko lañ gën a yaakaar ci yow mooy nga delloo ci moom mébét ak yaakaar waaye itam wóolu ci boppam ba ma ne gëm ne moom fi ñu ko bëgg a yóbbu mën na faa dem ku nekk nag ci ñun yaakaar naa ne boo delloo ci histoire da nga xam sëñ fàllu bi muy nekk xalifa ci yan condition la fekkoon réew mi booba fekk nañuy génn ci catul 39 45 muy guerre mondiale bu metti boobu nga xam ay millions doomu aadama ñoo ci faatu jamono fekk nañu ne ci xiif xiif bu métti ay mbas yu baree bari am ci réew mi waaye itam français yi ñëw occupé ñu sunu réew te dañuy xorñooñal ci fànn yu baree bari ñëpp dem ba seen yaakaar tas amatuñu yaakaar jàpp ne àdduna yàqu na te mënatu jag ñu jàpp ne ëllëg tam mënta dàq ren mënta dàq mënta dàq daaw moo tax sëriñ Fall bi mu ñëwee naka la delloo si nit ñi mooy waxam ji siiw jëm waxoon ne dàq naa bekkoor bi wërsëg bi ñëw na jàmm ñëw na lépp dana ñëw nit ñi amaat yaakaar amaat positif takkuwaat waat ñu daal di réaliser ay réalisation yu bëree bëri yoo xam ne nii la ca gën a fes na ci ñu mottali jumaay Tuubaa ji 1947 ba 1963 ñu ubbi ko loolu nag kon yoonu yarin la woo xam ne nii képp ku jox mbooloo nga di leen yar war nga cee bàyyi xel mooy teele def ci ñoom yaakaar teele def ci ñoom confiance ñu gëm ne fañ jëm mën nañ faa jëm waaye nag yedd gu bari ak tiital nit ki ci ëllëgam wala tiital nit ki ci man-manam wala xeebloo ko boppam dana tax boo koy defar moom du defaru kon point bi ci njëkk mooy mooy yeesal yaakaar ci nit ki waaye itam def confiance ci moom loolu gis nañu Cheikh Amadou Fadil daana ci jaar ak nit ñi daana def tam li ñuy wax yar ci joxe royu téef ak tarbiyatu bil xutwa mooy ne dañuy gis ne nit bu nekkee ci kanam mbooloo benn acte bu muy def rek ci kanam mbooloo mi mën naa soppi ci ñoom lu baree baree bari loo xam ne ni bu doon toog di wax téeméeri discours wala mu bind téeméeri téere du tax loola soppiku ci ñoom kon benn doxalin bu njiit di doxal ci kanam mbooloom ñu di ko gis rek mën naa soppi ci ñoom lu baree bari moo tax alxuraan dañuy wax ne yonent bi roy leen yonent bi yon wala boog yonent mooy seen roy te mooy jëf yi muy jëf ñu di ko xool di ko def moo tax ñi yëngutu ci wàllu defar dañuy wax ne pour nga yar nit defar nit jërul wax ju bari jërul dóor yu bari jërul tam ñagasal gu bari waaye yow da ngay fexe ba ni nga bëgg moom mu mel ko yow nga fexe ba mel noonu te toog ci kanamam mu lay gis bu yàggee day mel ne wéradi guy wàlle danga ko koy wàll bu ngeen seetloo da ngeen gis tableau yi ñuy publicité di ko taf léeg-léegi da ngay jàpp ne lii amul amul maanaa waaye fi ne romb gi nga koy romb bis bu set di ko gis di ko gis ba ngay jënd produit boobu doo ko tey loolu day am lu muy def sa psychologiquement dami am muy def ci yow boo bëggee mu mel na ni nga bëgg mu mel ko dangay fexe ba noonee nga mel ko ba noppi nag nekk ci kanamam moom mu lay gis bu yàggee day mel ni da koy wàll jàngoro joo xam da nga koy wàll sëriñ moom Fadil tam daana def jëfin ju mel noonu moo tax ñaari ku masaan jaxasook moom dangay ngay jeexital ci moom di dellu ci moom lu baree bari ci ay waxam ak jëfinam daana jëfandikoo tam li ñuy wax tawliit tawliit moom la ñuy wax mayotique mayotique xeetu njàng lii la woo xam ne nii nit ki boo bëggee mu xam dañuy wax ne nit li mu war a xam lépp mi ngi ci biiram kon li am solo mooy nga dimbale ko ba mu mën koo génne ñu joxe ci misaal ne la mi ngi mel ne jigéen juy matu jigéen bu tolloo ci matu ki koy rewli bu ñëwee lañ ko sant mooy mu jàppale ko ba xale bi génn waaye mënta fexe fexe ba jëkk jël place am di fa am gone naka noonu tam kiñ la jox nga di ko defar wala nga di ko jàng jikko yu baax yépp ak xam-xam bépp mu ngi ci biiram kon liñ bëgg ci rek mooy nga dimbale ko ba xam-xam boobu mu mën koo génne mën koo gis bokk na ci li muy jariñ tam mooy nit ki nga dem moom ci boppam mu demal boppam ba xam ne ndekete lim jàppoon du demee noonu wala boog mu demal boppam ba xam bi mu découvrir ko boppam ci biiram méthode boobu la ñuy waxee maïeutique maïeutique nag dañu gis ne ci buñ gëstoo ci Sëñ Fallu dana gis ne daana ko faral di jëfandikoo ci misaal tey kii ñuy faral di nettali ne dafa ñëwoon di ko jàmbat jafe-jafe kër mu ne ko bindal kër mu bind mu ne ko bindaatal mu bind wax ko ay yoon yoon mu ne ko jàng ko mu ne ko kër kër mu ne ko yoon waa ngoog kër da ngay kër kër yi mooy yor kër loolu da ngay gis ne kon jàngal na waa ji ci boo xam ne nii mayoti boo xam waa ji dem na ba gis ne moom ndekete li waroon régler problème mi ngi ci biiram loolu nag ñu baree bari ci ñun euh, duñu koy bàyyi xel lu am solo la ñu bari ñun dañu jàpp ne xale bu ñu la ko tax sol rek yow sa xam nii nga ko déggee woon ko ko noona bu ca yàqee sax mën nga caa duma duma yi méttee métti fekk na moom mën nga koo sol loo xam ne nii moom mën na koo bañ a gisee na ko gisee mën na ko bañ a jàppe na nga ko jàppe waaye fekk ne boo ko jàppale nag ba mu génneel ko boppam loolu dafay doon lu am solo ci mbir mi kon mayotique boobu gis nañ sëñ bi daana ko faral di jëfandikoo lu bari bokk na ci lim daan jëfandikoon li ñuy wax jawaamiul kalim jawaamiul kalim mooy lu baree bari loo xam ne nii boo ko doon bind day war a mat ab téere nga tënk ko ci baat yu gàtt jàlle ko ci nit ki bu ko defee boo ko waxee nit ki nit ki da koy gaaw mokkal lool te mën koo jëfandikoo ci façon yu baree bari moo tax loolu moom liñ ci def defe naa ne bari na lool ñu gis ne daana ko jëfandikoo ci jawaamiul kalim te mooy xikam bokk yi nga xam dañ koy faral di nettali muy wax yu gàtt te fees dell ak maana te mën a walaabal ci jamono ju nekk ak saa su nekk man caa walaabal ñu gisit ne daana defar nit ci taqoo gis ngeen ne loolu sëñ bi jàngal nag fu baree bari nee na nit mënoo koo defar ci taqoo ak moom kon taqoo ñi ñuy defar lu mënta ñàkk la fexe ba ñi nga defar tam nga tàqale leen ak ñi nga xam ne ni bokk ñoom ay jubluwaay loolu tam ba day mënta ñàkk moo tax sëñ bi jàngaloon ci xol bu kaw ne bokk na ci arkaan yooyu mooy nga nangoo beru ànd ki kilifa ñu lay defar loolu mënta ñàkk moo taxoon ñoom ñu daan sanc ay dëkk dëkk yooyu ñu daan sanc dañ fa daan ber taalibe yi ngir mën a jaxasoog ñoom ngir lañ bëgg def ñoom ñu def ko loola tam boo xoolee bi muy sanc ndindi ci atum 1913 booba ñaar fukki at ak juróom du ko sori te bi muy sanc Touba Bogo ci 1962 booba juróom ñaar fukki atam teg na lu xaw a bari nga gis ne kon moom daanaka mësta noppalu ci diggante boobu ci sanc ay dëkk ngir defa defar ay doomu aadama loolu dafay lu mënta ñàkk te manqué lool nag ci jamono ji ñu toll nii fi mu nekk nii royteef manqué wul kilifa manqué wul waaye nag kuy taxoog mbooloo mi moo xaw a manqué léegi ndax bu fekkente ne yow kii mooy sa sëriñ te boo ko gisee balaa nga koo gisaat déwén lay doon ci màggal lay doon maanaam maanaam juróom min lay doon wala ñetti minute mu daal di ñaan ñu daal di tàqali ko kooko pour mu defal dana xaw a joxe bu dee sëriñ boo xam ne nit léeg-léegi noonu lay demee moo tax léeg-léegi lañ cee bëgg ci taalibe yi muy xaw a ko moo tax sëñ Fallou jàngaloon nañu ne mëni su ta defar nit te taqoog moom moo tax sëñ bi sax waxoon na ne bi an yu laazima mutiyaan laa yamin koo xam ne taqoog koo xam ne nii kuy topp yàlla la te du jàng ci zahir du jàng ci baatin kon taxaw googu dem bokk na ci méthode bi nga xam ne ni Samoon Faati daana ci jaare di yar ay mbooloo kon yu baree ngi noonu yoo xam ne ni benn la ci yi nga xam ne ni mën nañ koo jëlee ci méthode bi sëñ Fallu daan jaar di yar nit ñi te defe naa ne kuy defar ba léegi war nga caa mën a jariñ mooy defar nit ñi ñu am yaakaar am confiance ci seen bopp waaye itam jox leen royteef bu mat ci sa jëmm waaye itam di leen jàppale ngir ñu mën a génne li ci seen biir waaye itam nag di leen tënkal wax ji ndax léeg-léegi wax ji day bari lool te njariñ day néew lool moo tax yarkat wala boog jàngalkat yu baree bari léegi mënatuñoo bàyyi jeexit ndax seeni wax dana bari lool te tënk ko dana jafe te ku nekk xam ne tënk moo gën a jafe tas tas moom wax ju bari moom yomb na lool waaye wax ju tënku te am njariñ moom ñi koy man bariwul ak taqoo gi itam loolu wan nañu kon yooyu yenn la ci yi nga xam ne ni mën nañ koo jëlee ci méthode bi nga xam daana ci jaar di yar bu ñëwee ci dimension morale bi éthique bi wala jikko yi ku nekk xam na ne ko dafa am solo ci aw askan wala mbooloo moo tax wax kat masoon koo tënk ne innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humo dahabat axlaaquhum dahabu nee na xeet woo gis ay ko moo tax ñuy wax xeet wa ay ay ay valeur yoo moo tax ñuy wax mbooloo valeur yooyu nag saa yu ñu demee ba ko rek mooy mbooloo moomee nekkatu fa muy wax ju am solo nag yoo xam ne nii taalibe yëpp war nañ ci bàyyi xel dafa am ay yoo xam ne moom lañ xamee woon murid ji valeur yooyu saa ñu ko ñàkkee rek mbooloo mi ñuy wax mbooloo murid moom dootu fa nekk jëm tur yi nag mën na fee nekk waaye nag la tax ñuy wax mbooloo murit dootu fa nekk te mooy yar bi ak teggin yi loolu kese mooy valeur yi nga xam ne nii moom la taa murit ëppale keneen ku dul moom waaye bu dee jàng alxuraan ñoo ñeneen ñoo ko bokk bu dee julli ñoo ñeneen ñoo bokk di ko def yeneen jàmm yàlla yëpp ñoo yeneen julli ñoo bokk di ko def kon yar ak teggin mooy li ñuy xàmmee murit loolu nag muy ay valeur ak cëslaay yoo xam ne nii taalibe bu nekk war na koo denc ci rog seenam ba kenn du ko mën a coppati ndax bu ko coppati bu fi jógee rek lii ñu wax mbooloo murit dafay daal di jógee kon jikko mooy ràññee nit ak bàyyi bàyyim ku nekk xam na ne bàyyim ak doomu aadama ñoo bokk li ñuy wax ay lu leen suñu borom mooñaale ay li ñu xaraayis mooy li nga xam dañ koy judduwaale waaye nag nit day wees fenn fi bàyyi ma nag moom du wees fenn ci misaal te ñu ne la lekk ak naan bàyyi ma ak nit ñëpp dañ koy judduwaale waaye aw lekkin aku naanin dañ koy jàngal nit te kenn du ko jàngal bàyyi ma moo tax xale buy door a judd liir buy door a judd moo maanaam mbotob xar buy door a judd daanaka ko soriwu ñu mbir mooy bu xiifee dana jooy bu lekkee ba suur dana nelaw bu yëgee ne am na kàttan day bajant loolu moom liir yi dañ ciy jaar ni ko bàyyi may defee léegi nag liir nag moom day weesu étape boobu bàyyi ma nag dadul weesu étape boobu moom da koy màggaale ba kër muy muy muy muy muy muy dee kon jikko yooyu ñuy defar ci nit mooy liy ràññale nit ak bàyyi ma ñu koy tuddee socialisation wala boog génnee nit ki ci état bu bàyyi ma dugal ko ci état bu ak nite ak nite kenn du ko judduwaale waaye dañ koy ci def ci nit bu juddoo ba nopp li ma waxoon léegi ci ne lekk ak naan dañ koy judduwaale waaye nag nu ñuy lekk ak nu ñuy naane dañ koy jàngal nit bu la ko jàngalut doo ko xam bokk na ci la ñuy def ci nit tam ci wàllu jikko mooy fexe ba def ci moom li ñuy wax conscience conscience mooy loo xam ne lu mel ne montre la boo xam ne day ne ci sa biir lépp looy bëgg a def bala nga caa dugg dana wax ak yow xëy na nag nit ñi fi ñuy rawantee mooy mën koo déglu waaye jëpp jëf jooy dugg boo yëgee ci sa biir li ñox-ñoxi xamal ni jëf joojee bay ma nga teeyul ci bu fekkee da ngay bëgg di ci jëf nag te sag dal dong nga yëg am tranquillité bu mat sëkk sa biir jàppal na jëf jooju bay ma nga wayal ko loolu nag fi leen nit ñiy wuutee man koo déglu ci la ñuy wuutee waaye ku nekk nag am nga ko ci sa biir loolu nag mooy jikko yi bu ñu ko dajalee loola mooy indi li ñuy wax conscience moo tax éducation bi ñoon waxtaane léegi wala defar bi ñoon waxtaane léegi la ko tax a jóg mooy jëmbat ci nit ki ay jikko yu baax loolu mooy defar nit moo tax bu ñuy waxtaanee ci jikko ci Cheikh Mamadou Fadil nag dañuy gis ne sëriñ bi radiyallahu anhu ngirum tasawuf fi mu woote dañ koo tënkoon ci ñetti étape bi ci njëkk mooy taxal li te mooy ñu raxas nit ki ba mu set wicc jikko yoo xam ne nii jikko yi naka su dul noonu la teg ca taxal li te mooy def ci moom jëpp jikko joo xam jikko ju baax la teg ca tajal li moo dem mooy mu dem bay gis ay mbir yoo xam ne nii moom dong moo koy gis ndax sellug biiram ak kawe ba kanam kon bu ñu demee ba ne Cheikh Mamadou Fadil takkaayo woon na mboolem jikko yu baax yi loolu defe naa ne wërte bett kenn su ñu xamee kan mooy Serigne Fallou ak fi mu bokk ak fi mu cosaanoon te jikko yooyu sax dañuy gis foo xam ne nii mën nañ ko faa delloon te mooy dénkaan boo xam ne nii ab lettre la boo xam ne nii wax nañu Serigne Touba moo ko bindoon Cheikh Mamadou Fadil doon ko ci dénk lam ko ci dénk nag defe naa ne ku ko dégg te jëfandikoo ko doy na jikko yu baax ci kaw suuf da ko tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim lettre bi arabe lañ ko bind dañ koy wax ci wolof rek mu gaaw daal ne ko ama baadu da ko wax ne ko yow sama ndoom si bum la war mukk wax ji nit ji wax ji di la wooy yow sama sang doomi sama sang mu ne ko loola bum la war mukk mu ne ko li gën ci ak càng mooy li nit ki fàggul boppam waaye du la la say baay ak sa maam di fàggul kon li tax nit ki ñu naa ko sëy mu naan ko sang lay tax mu nekk ko mooy ay jëfam ak melokaanam waaye nekkul la muy doon na ci ay waajuram loolu ko sëñ bi teel a jàngal am na borom xam bu ko waxoon bu yàgg ne nee na li nga doon ci say maam boo bëggee mu doon sa alal da nga koy fàgguwaatal sa bopp ngir mën koo moom kon su da ngaa doon mbaax ci sa da ngay fexe ba baax ngir baax googu mën a doon sa mbaax yow waaye doon sa baaxuk say moom la ko sëñ bi teel a jàngal ne kon nit ñi wooye gi ñu lay wooye yow sama sang ak sama doomi sang nee na bu mu la war mukk mu ne ko ngën ji sàng mooy li nga fàggul ba sabab nekkul li nga xam ne say baay ay say maam di fàggul dal ne ko ndam dëgg-dëgg damu dëgg-dëgg mooy ci li ngay jëf te di ko wax waaye laafil ahmaami wal axwaal nekku nekkut ci say baay tax ak say nijaay di damoo say baay tax ak say nijaay nee na ko amul solo waaye fexeel bay damoo say jëf ak say wax nee na ko wa inna sharaf fi l himami al laa fi rimam al baaliya mu ne ko honneur ak tedd nga mi ngi ci pëstéef bu kawee waaye newul ci yére yi ñuy xotti yi yoo xam da koy sol muy rab nekku ci loo xam da jëfandikoo muy rab kon ñu bari defe ne maanaam col gi ak yooyu dëgg la fonk gi baax na waaye nag honneur dëgg-dëgg nee na mi ngi ci pëstéef bu kawe te loolu mbirum biir la mu ne ko tedd ngay raas wala book cosaan dafay soxlawoo tedd ngay jikko moo tax foo man di bokk bokk fa waaye fexeel ba say jikko na doon jikko yu baax mu ne ko nag loolu tax ñuy wax ne laa xam nda li xamda liman sharufa nasabuhu wa saxu saxufa adabuhu mu ne ko cant wala boog tedd nga ñeewlul koo xam ne nii daa bokk ci askan wu baax waaye ay jikkoom melut na mu war a mel kooka taxut ñuy wax yooyu yëpp ay dénkaan la yoo xam ne sëñ bi moo ko dénkoon Cheikh Amadou Fadil daal ko indi nag benn misaal boo xam ne arab ñoo ko daan faral di wax ne ko kun isaami isaami yan wala takun idaami yan muy ñaari baat yoo xam ne dañoo xaw a niroo te wuute lool mu ne ko isaam yi mooy ko daan wax naan nafsu iwaamin nafsu isaamin sawadat isaama wa allamatul karra wal wa sayaratu basalan wa humaama basalan humaama xatta ala wa jaawasal aqwaama isaam nit la woon isaam bi ñuy binde sodd nit la woon koo xam ne nii sëñ bi da koo jox misaal si amoon fàddi ne ko fexeel ba mel ne moom ñu ne isaam nag dafa ma sa wax ne sama jëmm ji moom dafa maa gàkkal woo ma xamal waaye nag sama bakkan moo ma xamal nangoo xeex nangoo sonn nangoo wëy ci sama bëgg-bëgg wala boog nangoo wëy ci sama jubluwaay nee na bëgg ba boobu ak yëg-yëg boobu moo tax ma nekk ba nekk ba ba nekk jàmbaar joo xam ne ni ju kawe la moo tax it ma dem ba weesu sama maas mu ne nag yow ni fexeel ba nekk kooku kon ay saam yi mooy koo xam ne nii daa judd ci ay waajur ci ndey ak joo xam ne daanaka bàyyiwuñ ko dara bàyyiwuñ ko dara ci wàllu àdduna mu fexe ba taxawal boppam bàyyiwuñ ko dara ci wàllu jikko yu ñor na war mu fexe ba taxawal boppam mu ne ko nag fexeel ba mel noonu kon bul xool lañ lay bàyyeel ci ndono waaye yow fexeel la ngay mën a defal sa bopp ba mu doon sa alal kooku mooy xisaam mu ne ko nag bul nekk xisaam yi xisaam mooy kuy damm ci ay yax di way sama maam di way sama baay ak yu mel noonu xëy na lu am solo la waaye sëñ bi nee na ko jërul nga koy dooma yow kon loolu sëñ bi teel na koo jàngal moom mu teel koo mën a jëfe lool lool kon mu ne ko xisaam yi kiy damu ci ay yax nee na mi ngi mel ne bactérie bactérie mooy xeetu ndundat yoo xam ne nii dañuy ñëw ci bu sànnee sànne aw ñoom wala yu mel noonu bu fa yàggee ñoom ñooy ñëw dugg ci biir ñoom wa wala boog ñoo xam ne dañuy ñëw dugg ci biir yaramu nit di ca dund waaye ñoom duñ def benn effort duñ def benn man-man ngir mën a defar seen yaram bopp mu ne ko mooy koo xam ne nii mu ne ko nekkal koo xam ne nii da ngay ñàpp histoire bul bul ñàpp dég-dég ak histoire ñeneen ñi wala boog bul sukkandiku say maam ak say baay waaye fexeel ba nekk sa nitu bopp fexeel am sa taraangay bopp fexeel ba nekk sa jëm bopp loolu nag defe naa ne bind la boo xam ne nii lu baree bari mënees na koo déggee ci biir ci biir dénkaane bi sëñ bi andi na ko ci yeneen bayit yoo xam ne nii da ko cay sant mu mel noonu mu ne famal xasabul mawruus laa darra durruhu yëf yi dul fata illaa baaxara muktasab mu ne ko li ñu wax léegi rek muy ndono teraangay noonu joo xam da nga ko doon du tax nga nekk sang sang sang sang waaye la lay jëriñ dëgg-dëgg mooy li nga fàggul sa bopp mu ne ko bul sukkandiku mukk ca la nga xam ne nii say maam ñoo ko defoon bul jàppit mukk ne teraanga dañ koy donn ci askan mu ne kon xamal ne nit du nekk ku sang mukk lu dul ci boppam doonte nag ay waajuram dañoo nekk boroomi teraanga boroomi askan ba ñu teral lool mu jox ko ci misaal mu leer naññ ne ko bànqaasu garab goo xam ne nii day meññ su fekkente ne meññul dañ koy jàppee matt yóbbu ko dem taali ko loolu mu ne ko kon na nga fexe ba mel loolu nag defe naa ne doy na sëkk ci walif ay jikko ci dénkaane boobu yoo xam ne nii bu ko nit melee jikko yu baax yëpp dañ na ci yow muy loo xam ne dem ndaw ñi dañ cee war di roy gëm ne ñoom ñoo mën a taxawal seen bopp gëm ne lañ leen di tagg itam lu ñuy def lay doon waaye doon rek lu ñuy donn donte nag donn lu baax am na solo moo tax jikko yooyu bu ñëwee ci saamal dañ dañ ko ciy mën a gis benn par benn te sëñ Moussa Ka moo ñu ko tënkal ci xarnu bi boo demee fi muy waxee ci Cheikh Amadou Fadil bi muy tudd joomi sëñ bi dafa xam ma wax la lëf ci ay jikkoom lewet wayaf ànd ak sagoom niiru na baayam mat na doom ëmb na aw ëmb na ker sa xarnu bi loolu tënk na jikko yi yu baax yi mën a jàngate ci Cheikh Amadou Fadil bi ci njëkk mooy muñkat ku nekk xam na ne sëñ Fallou muñ muñ na lu baree bari njëkk nag muy am ngërëm lu sax dàkk te loolu sëñ bi tam waxoon na ko nee na maa ngi leen di xamal ne coono bu nit daj ci àdduna daj naa ko njëkk may am ngërëm loo xam dafa sax dàkk Samadou Fall jaar na ci situation yu metti lool lool sax nag gis nañ ay lettres yoo xam ne nii moo ko bindoon muy lettres yu doy waar yoo xam ne nii booba ku nekk xam ne ne jamono metti woon na jamono naqari woon na am na sax dëkk yoo xam waaw yooyu daal xëy na mën nañoo xam daal ne daal jaar na ci diggante yu metti yu tor lool lool waaye ak muñam moo tax mu xëy àgg fi mu àgg kon muñ googu lu ñu war a mën a jàngate la ci jikkoy Cheikh Mamadou Fadel mën ngaa woyofal sa bopp waaye boo amee fulaak fayda nag doon nangu kenn di la woyofal nit ñi di la woyofal loolu ak toroxtaan toroxal toroxal la lay firi moo tax Sëñ Fallu ne woon man na maa woyofal sama bopp waaye nag bëgguma ko ma ci jàppale kon woyof googu mu woyofal danañ ko mën a jànge ci moom te ay taxawaay yu baree bari danañ ko mën a gis mu ko daan taxaw ci yu mel noonu nekkoon tam ku dégg jaamu yàlla mooy ne xam ngeen ne lislaam julli ak woor ak yu mel noonu ay ponk la juróomi ponk la waaye fi ne dëgg-dëgg jullitu nit islaam yi nit bu ñu koy natt duñ ko julli nañ ko natt ci julli yu woor yi julli yu bari ak koor yu bari waaye nañ natt ci melokaan yi ndax lislaam ay melokaan la yoo xam ne nii dafa war a ci jullit bi muy feeñ ci moom moo tax léeg-léegi jullit ak muslim bokkuñu nit ki mën naa nekk jullit waaye du àgg ci daraja nekk muslim bépp muslim nag moom jullit nga jullit nag moom képp koy julli rek julli jullit nga waaye pour nga nekk muslim nag dafa war am ay jikko yoo xam day ne ci yow nga door àgg ci muslim moo tax yonent salaasam jàngale woon ne am nañ ay jikko yoo xam kum ne ci yow doo muslim donte nag yaa ngi julli di woor ne muslim nga doo muslim waxoon na ko muy muy léeg-léeg boo xeewu nar ak yu mel noonu boo boo diggee doo ko def ak yooyu kon jikko mooy tax nit ki nekk muslim yooyu nag mën nañ ko fee seet ci Cheikh Mamadou Fatim kon xam naa ne ngir bëgg tënk daal mën na na wàcc suñu kàddu foofu ne bu ñuy waxtaane ku mel ne Cheikh Mamadou Fatim di waxtaane yoon yi mu daan yare ak jikko yi ne woon ci moom danoo bëgg génération bu bees bii nga xam ne nii ñoom ñi ngi yéeg ñu mën koo jël muy seen royteef teg ko seen kanam te xam ne donte gisatuñ ko suñuy bët waaye jëfam a ngi fi ay jikkoo ma ngi fi ñum yoroon bàyyi leen fi tam ñu ngi fi kon soxla woon nañ personnalité yu mel noonu lool lool lool surtout jamono ji ñu toll nga xam ne ñoo toll jamono yi ñuy wax mondialisation ay réew yu mag am seeni valeur bëgg koo jël imposé ko réew yu ndaw yi tudd ko ay valeur universelle te loola nag buñ ca doxee ñun mooy effacer suñu identité effacer suñu bopp loola ndaw ñu war cee bàyyi xel ñu toll ci joo xam ne tam technologie bi avancé na lool te boo xamul na nga koy jëfandikoo mën na laa yàqal lu baree bari say melokaan ak say jikko te ndaw ñu baree bari gis nañ ne li ñu wax maanaam xarala yu bees yi dugal na leen ci ay melokaan yoo xam ne nii defe naa ne war nañ cee xalaat lu baree bari kon eh, ay melokaan lañ yoo xam ci sama faar na ko caa mën a ndaw ñi tam war ko cee mën a roy ndax ñoom dañoo ne ci lu mel ne xaw a tuuti ngëlëmte mooy ne dañoo ne ci diggante ñaari mbir benn boroom xam daan ko tuddee jaamit ak jaahit jaamit ne mooy koo xam ne daane dara du soppi ko lu ñëw lu bees rek mu bañ ko kooka tam day tax nit ñi duñ mën a avancer waaye nee na jaahit mooy ki nga xam ne daa gëm ne lépp lu fi nekkoon dañ ko fay war a jële te lépp luy bees ñu ko donte nag jàngatu ñu ko war a jànge ñaar yooyu nag benn baaxu ci ndax bu ci nekk da ngaa ëppal kon ndaw ñu war a jël lu digg dóomu te mën koo jàngate ci sax seer si Amadou Fadil kon ñoo ngi dellu ndokkeel ñëpp ci xew-xew bi di ñaan ñu àgg jàmm ak salaam te li ci nekk ci màggal dañ mën ko cee jële ci ay yiw ñu mën ko caa jële waffaqana allah li ma fi xayril islam wal muslimin wal iradati wal muridin wasalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah eh, sëriñ bi waxtaan wi am na solo lool te li ci solo sax mooy dafa leer am solo ba noppi tënk Eh, li ñuy faral di wax ne xayrul kalaami maa qalla wa dalla wa kullu maa qalla bil iktifaa'i xayrun min al kathiiri dil anaa'i eh, bu ko defee tamit fi nga ko tàmbalee eh, xamal ni kan mooy Sëriñ Fàllu donte du ku neex xam waaye liñ mën a xam ci moom wax ñi tamit ni moom mutaaddidul jawaanib la maanaam wala muaddid mutaaddidul shaxsiyaat maanaam wet goo jël rek la fa lislaam digle ab jullit war ko fa ameel boo demee danga koy fekk moo xam sëriñ daara gi ci wàllam wala ci wàllum politique nga xam ni lu baax a baax la ca jamono ji mu nuru lu bon ak lu nekk rek doxali wam ci war a doxee boo demee da ngay fekk wàll googu mu fees ko dell euh, mu daan def li ñuy tuddee tarbiya ci arab ca tarbiya nag buñ ko waxee day boole jàng jàngal ak yar ak mboolem loo xam ne nit ki da koy aajowoo ci àdduna ak ci àllaaxira ndax diine ji looloo tax mu ñëw defar àdduna defar àllaaxira bu fekkee nag ci olof euh, suñ ne tarbiyee ñun ci yar lañ koy faral di fiire ca dañuy wax naan jàng ak yar kon war nañoo xoolaat baat bi nga propose ci lu mel ne ki defar mu nekk lu am solo bi ci topp tamit jullit ñi niñ war a doxalee ci roye ko ci Cheikh Mahamadou Fadal nga xam ne duñ beru fële rek mel ni kuy daw responsabilité luñ indi lu bees duñ ko jéem a gëstu li ci lislaam wax ak na war a dëppoog lislaam ndax lislaam diina la joo xam ni du fi jóg bu mukk te lu man di ñëw rek dana dëppoo ak moom ndax saalihun li kulli zamani wa makaan waaye ñoom dañuy beru seen ruq rek lu ñëw ñu ne xaraam te loolu tamit xaw a jiweeg njàngal bi lislaam naam euh, bi ci topp tamit euh, yi nga xam ne Serigne Fall def na ko ci ay indiasat kon xam naa dañ dañuy dañuy baral rek ndax xam naa tomb yi mu wax bari na lool waaye tamit li ci ëpp solo mooy ku mas ku dalay jox confiance ba nga gëm sa bopp ba noppi mu door di la euh, def ci yow la muy def ndax nit ki boo ko gëm gëmloo boppam fu mënta àgg amul waaye bu fekkee ne nag gëmul boppam mawaaxib yu man di nekk ci moom wala may yu man di nekk ci moom ci ay compétence maanaam du ci gis dara te du mës a àgg fenn mu daan jëfandikoo tamit lu am solo muy tuddee tawliit tawliit ni nga ko waxee mooy dafal mari li ak tasifa xulula mashakilihi mu nit ki maanaam nga koy pousser di ko orienter ngir muy régleel boppam ay problème am loolu tamit lu am solo la ci côté yar bi ak jawaamiul kalim yi nga xam ne moo ci ñëwoon ak ma maanaam ñi mu daan taqoog ñi mu daan yar ndax yar taqoo la laaj ci wàllam jikko tamit Euh, ci jikko nekk lu am solo comme ni nga ko waxee ndax mooy tàqale diggante doomu aadama ak bàyyi ma comme ni ko waxee ne bu ñuy doro sosu ñooy xaw a nduroo waaye nit ki xel bi nekk ci xel bi nekk ci moom ak damir bi nekk ci moom da koy gën a orienté di ko jëmee ci nit bàyyi ma nag moom amul loolu moo tax ca mbàyyi ma lay des kon moo leen wutale te li xam ne moo koy indi ci nit ki mooy axlaaq mooy jikko nga wax ji am solo indi ñu lettre bi nga xam ne tamit moom la sëriñ bi bindoon Cheikh Mahamadul Fadl daan ci doon ci euh, dénk yu am solo di ko xamal ni ki nit mboolem lu nit ki di eh, fàggu ci ngëneel ak ci sang mooy la nga xam ne da koo fàggul boppam waaye du caagin loo xam ne da koo da koo donn ak yeneen yi ci toppaat yu am solo xam xëy na eh, jotaa bi day xaw a xat tuuti ak waxtu yooyu moo tax duñ mën a jaar ci mboolem tomb yi nga xam ni moom lañ ci jot note di leen sant bu baax a baax di ñaan suñu borom defal la tawfiq ñin ñu ko doon diglu tamit mu defal ñu dégg aku topp ba mboolem li ci wàcc ci njëriñ ñu mën ko jëriñoo in uridu illa al islaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh